asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq tey baalu àq ñëpp di ñaan yàlla di defal jàmm fu nu mën a nekk. jël di soon nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale seen sit bi ñuy wax Tanim TV Seydina moo nekk ci xarale gi ñu ngi nuyu Baye Modou Dieng Touba 28 mi nam dëkk ko mbokk yi tey taxaw seetlu bi dañuy ñëwaat ci Moustapha Diakhaté mi Euh, li tax nag ñu ciy ñëw mun noo noppi ci moom euh, dafa mënta noppi ci tuubaa ñun nag jéemunu koo mott noppiloo ci Touba waaye bëgg nañ wax dëgg yàlla suy wax mu wax ci wax ju rafet su fekkee nag mënu cee wax wax ju rafet moom ah lu mu ko jaral ci yàq ak ñaawal ak gàkkal ñun nu ko jaral ndax mu Moustapha jaxate su fekkoon ci réew mu normal dëgg-dëgg la nekk moo xamante ni sunu njullit gi ñuy woote gu mat sëkk la jàpp naa ne benn organu tele wala rajo dootul dékkati Moustapha Diakhaté euh, micro muy wax ci dara ndax yonante bi nga xam ne moom lañ gën a fonk euh, muy sunub yonante boo xamante ni ni nu ko alxuraan waxe ak moom yonante bi salaa salaam nu waxe nee na ci ñun kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul dañ koo gënal mu gën moo gën suñ ndey ci ñun gën ci sunu baay ci ñun gënal nu sunu bopp ci ñun kook ku mën a taxaw wax ne yonent bi gënu la ndey gënula la baay baayam gënul sa baay yaayam gënul sa baay kooku wax dëgg yàlla ñu mën a taxaw di ko joxati nag micro wala di ko dalal ci ay télévision wala ci ay sit internet muy wax loolu réew mi am na problème euh, ndax yonent bi sallallahu alayhi wa su fekkee mën naa taxaw di ko wax ju ñaaw ju mel nii te wax jii ku mu ko waxoon rek benn télévision directeur télévision wala benn organu télé ku mu jëmale woon wax ji ci sa ndey wala mu jëmale ko ci baayam kooko boobu tele ci lañ koy mujj éviter te yonante bi moo gën ñëpp ci ñun gën suñuy ndey gën suñu baay gën nuy ndey gën nu baay dafay wax nag wax joo xamante nii man dama jàpp ne euh, Moussa àndatut ak xelam wala jàpp naa bu xelam àndeek moom it am na lu lëm xelam xam nga dafa am luy lëm xel mooy nit su fekkee li muy am ñaqam mayu ko ko ngorom mayu ko ko diineem mayu ko ko la koy may lu mu mën a def la li nit lim am muy wëllër ci moom muy tax ñu koy xool muy diine ak ngorom fépp fu mu jël xaalis aj ko ca wala alal aj ko ca buy dem leneen lay yóbbu waaye ruwam moom dina fa des su ma waxee ruwam mooy diineem ak jikkoom ak dignité la tax ñuy wax nit dootu ko yóbbaale moom mën naa yóbbaale xottu nit waaye du yóbbaale lool Moustapha nag loolu daf ko wékk ci ay nit dénk ko ay nit moo tax daanaka mënul mënul nekk nit koo xamante ni du yàlla dinañ ko séentu fi ñuy séentu nit ñu baax ñi am na nag lu ma waxoon loo xamante ni dafa am docteur yi xam nañ ko waxtu wu nekk dañuy soxla deret di wax may nu deret dafa am ñu manqué deret ndax nit ñi foofu lañ toll mu doon nag yool bu rëy waaye am ñoo xam seen deret mën naa may diw sàngam mi kee mën a may diw sàngam mi kee mën a may mais am na ñoo xamante ni buñ dikkee di mayee deret ci ci jamono yi ñu koy may dañ leen di wax yéen mënu leen a mayee deret amu leen kenn ku ngeen mën a may deret fii ñu laajte ñu ne lan moo tax ñu ne seen deret dafa baaxul mooy deret ju jaxasoo ak dët nga xam ne deret jooju mënoo ko yóbbu ci laboratoire waar yi ba nu mën koo segg ba mu doon deret ju baax ju baaxul la rek mënoo may kenn deret am na nit ñoo xam ne foofu lañ toll seen deret Moustapha suy jëmale ay kàddu ci wax ne lin def Touba Ousmane song la loolu wérul loolu du Ousmane songo mbir mi fi la nu fekk Touba gi yàgg na yàlla daf noo dimbali ba mbir mi kera bi muy am am na ci xaaj benn boo xamante ni daf nu cee fekk mooy xaajab jumaa ji fekk nañu ci jumaa ji xaaj bi dëkk Mbàkke fekk nañu fi ndax ñun bi ñu fi jógee di dem Mbàkke six heures fi maire bi fi lañ fekk takk der yi taxaw maire bi ñu taal foofu nga xam ne képp ku jëm Mbàkke da nga tourné muy usmaan Sonko keneen ku du usmaan songo amul kenn ku mën a jaal ci route bi dugg Mbàkke fa te jàpp naa ne am na ci ñoo xam ne jëmu mitin nu woon ci mitin ba xaajunoo jëm ci mitin ba jéemunoo mitin bu dee ci jumaay ji Ousmane Sonko bi muy julli ñun fa nu fekk ñoo bokk julleendoo fa ba mu jullee ba noppi fa mu fa tooge ba ni muy génne fa fekk ñun sax ñoo ko njëkk génn jumaa ji <coughs> kon bu bëggee wax ne Ousmane Sonko moo fa indi taaliya moo fa indi yooyu déedéet ak mu wax ne quatre-vingt nangam temps Touba ngi dund 1927 ba léegi mosu fa am fii ñoom ko bokk ci ñoom di APR moom lañ njëkk a taal këram bëccëgu ndara kàmmu fii ci Touba te lu ko waral mooy ñàkke war ma ak kilifa diine gu nekk Touba ci sëti Sëñ Touba yi ñu dem ba taal këram mu transfert jóge fii ci dëkk bi dem ne nekk ci beneen dëkk dem Ndakaaru ne léegi fa lay miite fa lay kii ñoom ci seen bopp ñu xam ne kii toujours li muy yàq kilifa gum fi jàppante lu ko li muy waxante kilifa yi wax yu ñaaw la yoo xamante ni yu jéggi dayo la ñu fexe ba jëlee ko fi loolu xanaa loole ba muy am boobu Ousmane a dugg ci politique xaaju ci duggaat ci politique boobu ñoom ñoo yore yëf yi te ka ko doon def ci ñoom la bokk ah, loolu fi la nu fekk muy wax ne loolu mësul am Touba ba Touba amee loolu am na fi te ci ñoom la amee loolu du ko fàtte nee na Touba dañ fay aaye politique Moustapha Diakhaté ñëw na fii di fi nekkal fi président Macky Sall di ko fi politiqueal ci dëkk bi 2019 élection yi bi ñu bëgg ñëw fii def na fi lu mat daanaka un an boo xam ne Touba bu xëyee fi lay xëy daanaka gën gaa bari lu muy nekk fii la koy nekk di wër dëkk bi di digee fu nekk mu ne fa naam daraami aw siise fat siise fu nekk mu digee fa te la mu fa digee daanaka dara dara dara defu ko fa Moussa fi la nekk la nekkoon lu nekk fi la nekkoon moom day wax comme nee nga woon danoo aaye Touba politique te yow mi nga fi ñëw politique moo la fi indi ñëwoo fi woon siyaare ñëwoo fi woon ngir toog ñëwoo fi woon def dara. Moustapha nee na waa Touba jàngunu wax dëgg yàlla jàngunu ba kenn ko ah <coughs> li nga wax garaaw na mu ne non non jàngunu nag école amu fa jàngunu moom xam nga loolu mooy ñàkk ak xam-xamam gi bu fekkee jàng rek ci français rek mooy am jàng loolu ma xam ne kon njàng moom mu sëriwul français aw aw langage la ab aw làkk la wu ñuy jàng làkk woowu amul dara loo xamante ni mën na koo def ci nit li am solo mooy jikko wax na fii ne fi la ndeyam fi leen ko suul fi leen suul baayam ñan ñoo ko jullee ndax bu fekkoon amul ñu jàng ndax dinañ ko fi jullee wala ñu kii ko te ku nekk xam na ne jullee néew xam na ko bu ñu jàngut woon dinañ ko def waa Touba bu fekkoon jàngunu mën na noo ñoom ñëpp ñu orienté wu taxaw ne du ñu wooteel diw sàngam te kenn influencé wu leen ñu xool ne bu fekkoon ne wàllu xaalis lañ leen di naxe xaalis a ngi fiy dugg lépp a ngi fiy dugg mais seen conscience ak seen jikko la kenn mënul jënd kenn mënu koo jënd moom ñëw na fi ngir jéem a jënd loolu. yabal nan ko fi ñeneen ñëw fi ñeneen ñëw fi mais mënunoo jënd li waa tuubaa leen yor dafa am kun ko jox ba noppi bu dee wàllu politique nag politique la ku leen neex am nañ suwaa ñu tànn ko waaye la ñuy bëgg ak la ñuy gëm loolu mi ngi ci sëñ Touba te loola jox nañ ko ba beneen bi ci des mu ne lii fi am Ousmane Sonko moo ñàkk si nekkab Touba ak mi ngi kii tuubaa mi ngi indi Touba déedéet du benn Ousmane Sonko Ousmane Sonko def fi dara. lim fi am kenn mësuka am ñëw na fii julli si ñëw na fii ñu bindal ko fi kaamilu alxuraan ñëw na fi def loo xamante ni te pourtant waa APR yi xaar ma ñëw ci sax sawaa mii di wax jàngul ne fii la lu mu am jàng fii la fii ay école la nga fi école yi gën a rëy mi liy dem Kera mbay ak liy dem Mbàkke ak liy jàng école sëñ Abdourahmane bi ak Daaru Xuddoos kenn xamul nu mu toll mu ne jàngunu ren jii xale bi nga xam ne mu àdduna bépp dañ doon def concours alxuraan concours njàng la yaakaar naa ci taj tajwid ak jàng ak xam lan mooy am njàng njàng mu baax ba àdduna bépp taxaw di ko def xale bi ko jël Touba la dëkk te amagut 18 ans nga ne jàngunu bu Touba jàngut woon dina mën a bokk ci concours boo xam ne bitim réew la nekk ñu def ko nga ne jàngunu yow yaa jàngul rek yow koy sa njàng moom li ko yàq gusaas la yàqoo <laughs> nee nañ ko saatu bi mu fa nekkee daanaka fecc moo yàqoon am njàngam am na sax ñoo xam ne fecc moom daan fecc fecc mu ko gën a yées amul fecc ventilateur la Moussa Diakhaté daan fekk jigéen ñi loolu ñu daan ventilateur fecc moom moom la doon fecc te Imam Malik dafa wax ne bi ko laajee ne ko ndax fecc daggan na wala daganul wala mu ne ah fecc de xaw ma dagan na wala daganul wala araam na wala déet waaye daal ñun ñi yées te suñu dëkk ñoo koy def moom nag daana ko def beneen bi ci desaat waa tuubaa gi APR Touba gi di wax ñu nit yëf yi fi la nu fekk ñun kere jumaa ji fa la nu fekk beneen bi ci desaat fi la nu fekkaat fa sàndarma yi taxawoon ak police yi taxawoon fa la nekkoon doon gis événement bi li xew lépp ñun demun woon mitin mitinun woon demun woon fen waaye dañ doon liggéey gis lépp nag lu ci bari boog ñu gis ko kera ñoom ñi ñuy wax xam nga ñoom dañoo njëkk a génn fii waa APR Touba ne Ousmane Sonko mësuñu koo gis mu julli si jumaay Touba mësuñu koo gis mu dugg ci barabu sëñ bi <coughs> waa loolu Ousmane ñëw jullisi si fi àjjuma bi mu noppee mu dugg ci barabu sëñ bi bi muy dikk ñu ne ko muy dugg euh, summi dàllam daal di kii pourtant ñoom seen njiit seen leader dëgg na fii Mor Ngom ne ko sëñ bi sa dàll yi mu ne ko déet duma ko summi fële laa ko summi loolu ñoom ñëpp ñoo ko gis bu nu bëggee wax ne am ko fa ñoo xamante ni seeni wax moom woyof gi mu woyof daanaka kenn mënu koo peese sax wax ju ñàkk ju doye di joo xamante ne ci biir jumaa ji taal nañ fi ay pono ci biir jumaa ji mitin nañ fi ci biir jumaa ji Cheikh Bass ak euh, sëñ Ousmane Sonko nuyuwun te ñoom ñaar ñu bokk émage yi leer naññ man dama defe ne nit ñi dafa jàpp dama jàpp ne daal dafa am lu nu manqué xam nga dafa am loo xamante nii nag euh, bu manqué ci nit nag manqué na yonent bi salaa salaam wala Luqmaan ba muy wax doom ja daf koo wax ne ko am na ci nit loo xamante ni indil ma li gën a baax ci nit mu indil ko xol mu ne ko indil ma li gën a bon mu indil ko xol kon am na ñoo xam seen xol moo feebar dafa am xol bu feebar mooy xatamalaahu ala xulóobihim wa ala samhim Euh, maanaam ñoom ñoom ñooñu doon wax Ousmane Sonko ñoom xam nga lii tax problème bi ñu koy nettalee version yu bari yi ñoom nag wax dëgg yàlla man mosuma leen a gis ci jumaa ji ñoom ñooñu waa APR xam nga ñoom bu ñu doon ay jullikat maanaam mbir mépp fa la leen di fekk ndax lu toll ne ajjuma Ousmane Sonko jóge Dakar ñëw julli si fi ah yow nga dëkk ci dëkk bi kenn mësulaa gis nga julli xam nga ñoom bu fekkoon ñoom ñëpp benn APR boo gis daanaka ci loom yow kera ku julli si ajjuma amul Ousmane yàlla defal ko tawfeex joo xamante sëñ Muntaxa gëjoon na julli si julli si yàlla dogal mu julli siyaare fi mu benn APR ñi toogoon ñëpp di wax naa jumaa ji lii fa xewoon ci waa APR yi kenn julli siwut man ba muy julli fa la ma fekk bi ñuy jóge muy jóge jaar côté bi yàq amee sax foofu jaaru fa sax lool Ousmane ne Moussa ne euh, xale yi seen i bàyyi leen war a téye ndax parce que seen i bàyyi nangam xale boo xamante nii dem na ba toll fi mu toll buy dem bàyyam yëgu ko mu def ak tooxi doona wala leneen am nga ne ñoom bàyyam yéen ñaata yoon bi ngeen di sa ñaata xale lañ téye yoo xamante ni dañ doon jóg di leen jàppale di leen soutenir ah waaye sa waay yow dimbali nit ñi lillaahi wa am loo xamante nii ni yaa ngi mage si tuuti 63 ba léegi bi ñuy ubbi jumaa ji boobu ba léegi mi ngi xaw a yàgg si te yaa ngi xaw a mage lii jàpp naa ne eh, dara jëru ko yow xam nga fi ñu toll nga toog di wax ne génn nga APR nekkatoo APR loolu sénégalais yi dañ lay xeeb sax ndax parce que yow yow yaa seen avocat ci ci ci ci biir ci biti nga ne nekk ci ñoom ci biir gi yow daal def naa ne daal sa kaw daal moom nga bëgg a dëggal sa biir lëndëm <laughs> waaye ñaar yëpp lëndëm ndax biir gi wax dëgg yàlla kaw gi ñëpp xam na ne yow yaa nga APR bi ci des waa APR xam na ne yaa nekk ci biir di leen xeexal xam nga loolu bu yàggee lan la lay def maanaam ñëpp a lay bàyyi <laughs> ñëpp ñëpp lay bàyyi de yàlla bu dul woon tuubaay ji duma am ci yow jotu wax ndax de yàlla man xam naa ne Moussa saa buy wax li muy njëkk a tàmbalee yàlla nañ fi wax lu dëggu ak nangam ñàkk a dëggu ay wax mi ngi tàmbalee ci di ŋàññi yonante bi wala ay waajuram ñaari analyse yi ngay def sax yow danga nga du seetlu nga ne li la Ousmane Sonko wax loolu moom du dëgg mais li ndaw li wax li ndaw si wax xamoo ci dara mais sëñ bi loolu kenn xamul lu mu def ñaari ñoo xam ne ku ci nekk dalaa wax ne li lii moo tax nangam nga dëggal kee weddi kii